libération yéen a kaane ni ñuy taxa taxate kon wàllum littoral bi de waaw maître Malick Sall ministre de la justice ah daxul nag ñu topp ay doomu aadama kon ci kanamu tribunal bi lée looloy dëgg ginnaaw nag suuf si kon nañu ko taxa taxatee daal di koy agressé waaw géej gi tamit ña ngi koy taxa taxatee di ko agressé de ubil libération yéen a kaay nañu ci ñetti fan ah anaam jël na juróom ñaari bato chinois wutal leen koy tujjudu Sénégal tey licence de pêche ya la ilaha illallah kaa gi ne ubbi te classe yi de léegi école parce que Mamadou Talla ministre de l' nationale waaw daal dinay daje nag ak syndicat yi waaw waaw te jàppale ne na classe d' yi ñooy njëkk a ubbi ministre de l' éducation nationale té Mamadou Talla daal dinay dalal xel ya te ministère de la santé ci boppam day dana d' accord na ci loolee nga xam ni kon moom la Talla def maanaam ubbi waat école yi waaw ndax fii mbas mi tollu tey ci ngeen jëw fa cekkeen di ci kër Cheikh Yirim Seck yu bari ñu xëye ndool fa la ñu xëye l' observateur ñoom ñëpp xëy na ñu xamal ne Yérim Seck ma nga ñu wolu ci gendarmerie ñu jall ci libération gis fay li tax ñu convoquer Cheikh Yirim Seck ci brigade de recherche bu gendarmerie Faidherbe libération nañu élèves yi war def examen légui tay ñu ubbi leen seeni classe ndax ministre éducation nationale di Mamadou Talla mook ñi mu àndal ñoo nga cey liggéey bu baax a baax te yàggatul libération titre Fou Yuan Yu sur la piste des licences de pêche il est question de quoi eh bien de sept navires chinois sénégalais entre guillemets en l'espace de trois jours révèle libération pendant ce temps le journal piloté par mon confrère Cheikh Mbacké Guissé nous apprendre que le ministère de l'Intérieur et le tribunal du travail touchés par le Covid-19 aussi. Libération au chapitre du retour des enfants en classe nous informe qu'on se dirige vers une reprise imminente des cours. Une information confirmée par les échos.